Música mbokk internet yi ñu leen di nuyu di leen dalal ci biir limametti.com di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñu topp ñu ñëw génn ci information de dernière minute bi di concerné ki nga xam ne moom mooy homme d'affaires bi di Bara xam ngeen dafa daal takk troisième femme ci week bi nga xam ne ci lañ génn ki mu takk nag nekk Zeyna nekk rako ci ki nga xam ne moom mooy Adja mariage bi nag ñi ngi ko sele ci week distanciation sociale bi ñoom respecté wuñu ko maanaam dañ doon def ay contact ak yëpp yu demee noonu ba tax nit ñi di ko ñaawlu bu baax a baax baax looloo tax ba police daal di leen woo moom Bara Gaye ak ki nga xam ne moom mooy Adja Diallo di griot des VIP woo leen fa nga xam ne moom mooy section de recherche mettre leen en garde à loolu pour wane ni kenn nekkul au-dessus képp koo xam ne rek dafa daal di enfreindre loi bi yoon dafay daal dal sa kaw loolu itam doon jël troisième femme weekend bi nga xam ne ci lañ génn ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp limametti point com ngir information yi cloche de notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a ngeen mën xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez-vous beneen yoon ci biir limametti point com ak yeneen i actualité